waaw naa maa pare sama événement bi waaw fi toll nii kañ moom waxal ma ko alsanka sama waaj waaw sama GP bu mag bi nee ko moom laa ko pare ne lépp lu mu ci def daal ma xeeb mooy borom bés bi dëgg neexul waaw kay nuyu waaleel ma ko bu baax mais hmm? eh, Ndeye waaw naka bu nag sawa yaa ngi si jàmm maa ngi fekk yaa ngi sa téléphone bi ah réew mi rek nekk di doon wax téléphone. non li ngay lijjanti war na rëy de. ah waaw man man Faye Sall laa doon waxal nii di moom laa doon tàggatoon. eh kon yow na yow ko garaaw. nu ma garaawee. ah dangaa garaaw rek. waaw ah, loolu si garaaw Mariam Faye Sall dafa garaaw. ah waaw loolu xanaa Mariam Faye Sall du nit sama xarit sama frère la ñoo ok loolu laa xam nga ma daal damaa bëggoon ñu waxtaan xam naa ne nag mhm. waxtaan bi dina la jaaxa ndax bee paase ñëw nga fekk ñu fii maak laay ñu toog xam nga ñuy expliquer te yow sax yaa ruux laay kan waaw yow yaa ko influencé bi ñu yéegee ci kaw dafa ma sonal naan ma xam nga sa tante bi lu wax dëgg la war a def ay affaire de jigéen di sol say kii comme que nag yaa sooke loolu te man yooyu noonu xaw ma ci dara. Mm. loolu laa ñëwoon pour ñu wax parce que tamit damaa bëgg tamit waaw sama sëy bi comme nii yéen da ngeen yaakaar ne affaire bi ay caaxaan la du caaxaan dañaa bëggante. Ah, da ngaa fas yéene sëy daal. waaw bëgg ko defal lu mu bëgg. comme que nag moom loolu yow jigéen nga ko ba mu ne man naay sol yére jigéen. waaw léegi loolu responsabilité boobu si yow laa ko teg. man noo koy tegee si man man kañ def aw ma problème conseil bu ma leen joxoon la rek. yow yaa war a jël sa responsabilité boobu xool nu ngay solo ak yooyu. raison pour laquelle nag ma ñëw ci yow wax la ko parce que comme yow man yooyu duma ko sol. waaw du sama style. dëgg la te yow yaa ko wax ba moom dégg ko dima ci créer ya léegi moo tax nag ma bëgg xam nga yow instant yi nga commencé nag di ma solol affaire yooyu. ma jënd ko sama xaalis di la solol. ah mais boo ko jëloon noo koy. non non non su waa wuy ma dañuy waxtaan. Hmm. déglu rek sa borom kër la moom ngay sayal. waaw li mu bëgg. Hmm. mettiwul. Hmm. dëgg la nag. dafa soxla yow ay ay jaagal jaagal ngay def ay tay baas ak ay marinière yow fi mu toll imagine toi boo defee sa tay baas bu baax dagg say resta ni ko tëpp fee wut sa périg bu normal di ko takk sa jëkkër ji du kontaan. dagg lan yow nga wax de. sa resta yi. non non non dagguma ay rasta de. rasta ça n'a rien à voir ak Habiba man kay sama problème xam nga fan lay nekkee. Mm. seen affaire yooyu ngeen di sol soo ma ko solo lay sama si yi laa siy boole. vans yi yii eh? ma sol. du dem. lu tax. nooy ah, solee ma ne leen do man la loolu àndul nag su nekkal nit wuy ma defal sa bopp ndox loolu munul nekk bu de mar marinière ngay sol ak zip. Hmm. sa euh, vans yi tegal ma ko nële. Hmm. def say carax yu tubaabe wala say coquette sa jëkkër ji xool sa forme bi génn dangaa jonga mën a nox génneel sa bopp nag bul yàq sa bopp bul yàq sa loolu la bëgg defal ko li mu bëgg. yow loolu nga gis loolu laa gis. waaw li ma raison pour laquelle ma ñëw si yow ak ñàkk xam fu may jaar. waaw comme yow yaa ko wax ba mu dugg si noppam. moom tamit sax instant moo koy wax. moo tax ma bëgg yow loolu nga jël ko. waaw naa amul benn problème en plus de ça. comme yow ay ñoom Marème Faye Sall ngay wax ak ñeneen ak ñeneen du garaaw ci yow. du garaaw moo tax na mais fi mu toll nii sax damaa amoon benn événement bu ma doon def. Hmm. Euh, journée de la femme xam nga nekk ci 8 euh, mars bi léegi mu léegi nag damaa mobiliser woon femme yëpp. ay hôtesse yëpp ma dagga leen si ça fait naa la daggal sa 6 mètres jox la nga wut ku la ko ñamal ngal la bu ma ñawal ay ay ay ay faaru mbaam yooyu dimbali ma ci rek boo demee man mën naa laa boole tailleur bu la ñawal robb bu baax bu toog nga am sa musóor nga ñëw bu dee seen axlu bi am na ay gal yu ci nekk nga indiwaale leen ngeen ñëpp ngeen ñëw ndax waxtaan la jigéen ñi waxtaan ku ne génne li sa xol ndax journée de la femme la ñu wax sargal jigéen ñëpp laa bëgg ngeen ñëw ah bëgg naa waaye xam nga problème bi mooy ñun buñ fa demee amuluñu njëriñ parce que état faale wuñu te wuñu defaluñu dara waaye noo leen bëggee état faale leen noo leen non wax ma rek ndax maa état man hmm. wax ma lan ngeen bëgg exactement état jàppale leen ko mais déglu rek jàppale la maa maa mel na ni maa état maa ngi lay déglu ni hmm, kon yow li ñu nekk yëpp mbubit yi ma lay wax yëpp kon déggoo ci dara loolu nga bëgg exactement voilà benn waaw huit mars bi buñ demee bay sol comme yére yi ñuy jox di di mars waaw suñu pancarte la ñuy wut pancarte pour ah, bind lu ñu metti par exemple bu ñu waxee ay waxu kii huit mars hmm. suppose léegi ñoom hmm. seen problème mooy li ñuy wax rek mooy suñu ñun axlu bi ñun ñoo ci gën a am problème parce que ñun suñuy bëgg-bëgg rek la ñuy yokk yéen <laughs> lu leen bëgg waañ ko ah loolu ngeen ne ko asdaar. waaw. ñu wàññi ñu wàññi parce que sucre bii nii mi ngi rey askan bi jabet dong lay jox dëkk bi. mais mais may si nag. kon yéen daal loolu boo demee ba jàkkaarloog état daal yow loolu nga koy wax mooy sa problème. moom la ñuy def si pancarte yi parce que ñun loolooy suñu mbëbët. wàññi waaye. waaw dégg naa état jot incha man na. man na waaw. Ah, bul fàtte li ma la wax. amul benn problème pour yére ah. yi xew mi ñu bon lañu waaye xew mi daraa ngi ci dara mën a cee ne ah waaye xew mi dara dara mën cee feeñ eh, allo waaw eh, Ablaye sama waa ji na nga def ah xam nga de yow moom yow xam nga ne boo ma gëjee dégg mbir la waaye mënoo ma waroo ma sax gëj a dégg ndax bu ma jaaxle ci yow laa jëm jéy waaw mbir nag dafa am waaw xam nga moo petit frère la caam oh, yaa ko laal nag borom bouquet yi ki ñeme liir mi ngoog xam nga moom da doon wëndeelu rek amoon na fi doom joo xam ne nii da ko abandonné léegi nag doom jooju daa jékki-jékki ba wër gi si baayam ci loolu mu am ku koy bëgg waaw xam nga loolu sant yàlla la léegi nag koo ko bëgg nag mu war koo takk suñu jàpp gis te xam nga man waxuma la moom wa waaw waaw baayam sax ci ci man la laxasu ñoom ci man la wéeru waaw lépp man la war fi mu ne waaw yow nag yaay sama loxo bu ma jaaxlee ci yow laa jëm waaw fi mu ne nii boo ci jàppul dana ñaaw lépp man la war lépp man lañ ko yar ñoom nële lañ toogee waaw bàyyi maa ko yor nañ ci kër gi ci moom ubbil naa ko fu boutique mu fexe dof dof lu ba boutique ba tëj jël naa oto jox ko muy liggéey oto baa ngi noonu kenn xam fu mu féete léegi nag mënoo ko sa deret la mënoo koo dàq waaw waaw lé ah waaw yow kay xam nga ne noonu boo ko defee taxaw ngaa dafa lépp cinq cent mille oh, waaw noonu baax na waaw waaw defal nu moom la moom la rek jàmm waaw waaw waaw amul benn problème d'accord kon loolu daal boo ko defee dimbali ñu waaw waaw dimbali jaaxle nañu waaw boo yaa ngi toj kër gi voilà voilà merci voilà. allo. ça mu. ça va bien la es laa doon waxal ni ah, es bon moom laa doon waxal nii. ok dégg naa si téléphone bi ante teew rek. waaw na kay nee naa ko booy jaaxal nañu. kii il faut ñu xool booy ñëw jàpp leen parce que ñu taxaw nañ suñu fit. waaw te munuñ ci dara. voilà. inspecteur waaw moom laa doon waxal nii. waaw waaw ok dégg naa dégg naa li nga def nag baax na xam nga intervention dafa baax. de mooy intervention intervention parce que kër gi jaxasoo na fi mu toll nii. torop jaxasoo noonu la baax vraiment je suis très content. mais parce que loolu mooy sa warugar aussi. wa voilà nit su amee xew. xew wu toll nii da ci wut intervention. ah dama nit su amee xew xew wu toll nga dem ba ci commissaire. Hmm, di laaj intervention wala inspecteur loolu baax na. waaw pour booy yi. booy yi li ñu naan nekk lépp bëgg a yéegloo ñëpp ci kaw. yéegloo loolu laa doon wax ak moom. waaw dama ragal nag yow da nga yéeg yow mi sa bopp. ah ah si ah nu ma la e? xamoo lu nga yéegi ba ah. ba intervention bi ngay def inspiration bi ngay def ah. la nga ci laaj nga dégg naa ko ba li ma ne suñ la le cër nga gàddu cër bi dem bay demander xaalis pour nga pour nga pour nga yennu cër boobu parce que dafa diis effectivement parce que li ma la li ma la li ma la li ma la moo di fu mu toll ne xale bi dépensier bari ba tu as demandé cinq cent mille dégg naa la yow déggoo de la la la ndax nga dégguma yow déggoo de lan tax dégguma yow déggoo li ma la wax de. la ni leen fii bi ñu ñëwee di waxtaan suñu grand frère. waaw njàmme nee na loon jigéen kenn du ko maye noonu. da di joxe sax cinq cent mille. waaw laa wa de mais man laaju ma loolu laa leen wax. ah loolu nga leen wax. Ah, loolu laa wax. d'accord léegi ba ba ba xew ye sax xew la léegi. kan yow nu ma dama ne ma dofu ma jinne jàpp ma li ngay wax ci téléphone bi dégg naa. nu mu nekkee sama xew. sa xew la cinq cent mille yi nga laaj. fexeel ba nag xool cinq cent mille soo ko récupéré leer na ne tax gi yaay def lépp te dinaa ko wax waa ak axlu bi wax lu ban axlu bi dinaa leen ko dinaa leen ni ba mi ngi wër fu ne laaj na fa xaalis ñàkk sama ndey yaa ngi def ñàkk sama ndey def ma erreur yaa ngi def erreur yow yaa ngi yow ba ci erreur nga dëkk ngay dund xam nga sama kaw ngay dund nag léegi sama doom la yemee ma bàyyi la ko nga laaj lu tolloog cinq cent mille te laaj leer na ma ni laaj nga keneen cinq cent mille la keneen léegi soo ko dajalee mu def ay deux millions sa doom ngay béy sa déggin baax sa nga dégg du noonu eh, maa ngi dem ci kaw wax waa Oxlu. kan defal ndànk non defal ndànk non defal ndànk ci am defal ndànk non defal yaa ngi erreur nga dégg du yaa ngi defal ndànk erreur ma de billaay yaa ngi erreur yaa ngi erreur du loolu de lu tax ma erreur li nga dégg du loolu de lan laa dégg billaay li nga dégg du loolu maa ngi ma amul caam non caam munoo demee noonu ci kaw di ma jaxase xale yi goos yi ci kaw laa jëm non defal ndànk ci kaw ci kaw non non munoo ma jaxase ci bi si bi xam nga laa na lu ba trois millions. yow. yaa yow lii a amul lii lan. yow man yéene ma ne da maa a rey. dama lay dama lay rey lu yow. Ah? parce que xoolal yow il faut ma rey la yow. mais yow déggoo ni parce que sa àdduna yëpp xaalis la. ma ñàkk sama day dégg. yow dóor nga say jabar léegi say doom ngay dóor léegi. wala ma ñàkk sama day déggoo ma. billaay walaay doxuma loolu. déggoo eh waat bi ko dama ko tàmm man ci am. billaay walaay bi nga yow man tàmm naa ko. maa ngi ci kaw ni waa axlu bi ba yor na lu ma trois millions. kon yow sama bakkan bi nga bëgg a dañ lay bu ma jaamee laajee dem naa sama yoon man. fooy jëf nekkuma dem ma nekkuma fa dem naa sama xaar. eh booy eh. ak lu bi. jaam rek wax leen ko wax leen ko yow. waaye ki yow la. waaye yow gisatuñ la fenn déggatuñ la xamatuñ ci loo ne. na ne da ñuy jaay ne daal da ngaa am jëkkër rek wan ñu ginnaaw mais àddina du noonu gaayen. baax na billaay baax na de baax na ndax nii moom damaa nekk sama sëy concentré ak sama bopp am na yoo xamante ni bëggatuma cee dugg parce que am yàlla ba dugg ci ba génn ci bàyyi leen ma rek ma kuul bàyyi leen ma rek ma kuul bàyyi leen ma rek daal kóllëre. yenn saay sax nga faqastalu na xaaral ma yegg dem xool gaa yi ma maa faqastalu maa génn fenn bàyyi ma toog sama kër sëy bàyyi ma ma affaire bi neex na am am na business am na xaalis am na lépp yaa ngi dégg loo bëgg a faj da nga koy faj mais sëy jaamu yàlla la bàyyi ma toog rek garaaw bu dugg ak ci ay gaamu sëy naan danga ñuy jéem a waa sama business bi génn ci yombul xaalis bu weex tàll moo ci am mën ngay xoolal mën ngay jaar ci suuf di rek la say kot xoolal du nu mu demee man ku la mooy. yéen de goon nga ba yéen a goon ma am de tëni laay seyal de. aywa bàyyi ma ay waxi am de tëni am de tëni ba ci. Eh, baax li daal albarka rek li daal merci rek. mais wax yooyu sa xol nañ ko teg nee de côté mais yow sa frère bi. dem caa waaye damaa wax ko ba mais ni laay wax. waa léegi doo bëgg waaw. boo tëgg suñu combat ñun ñaar. ah da ngaa bëgg ma gi dénk la ba. ba dama càkk néew. loolu mën naa ko gérer aywa boobu xoolal defal loolu tëggal combat bi xoolal mi ngi mel ni mi ngi mel ni mi ngi mel ni neel waaw rek mais su ma waxee moom damay comprendre dina dina dina dina jéem a dugg mais dafa am loo xamante ne ñu moom noonu laay doxale ba sama liggéey noonu lay demee léegi da nga tekki taabal ji temps nga ma lii laa tekki taabal ji su ko defee bu ma waxee moom mën ko corrompre mu nga mën ngeen mën a gérante waaye pour ay demal nii wax ak ba nii nii noonu man moom situation yi du ma ci dugg dafa naqaree waxal yow xam nga ni man bu dee moonin rek coow lu jib yor naa ko mën naa koo gaspiller te xool dinaa def ci moom loolu ak loolu yow moom bul am benn problème danaa la jox lu weex taal yow daal tëggal combat bi rek. combat bi loolu itam doo changé ngir yàlla. bi ngay waxee ne di yéegal ay niveau nii. Ah, xoolal gaam boobu bu ci dugg xam nga li ma bëgg mooy nga tëgg combat bi mën nga ko wala mënoo ko. combat bi kay dinaa ko tëgg mais ni nga ko waxee nii moo moo xaw a diis. wàññi leen bàyyi leen ngir yàlla yónni bàyyi leen. xoolal am nga jëkkër. yaa ngi sëy di gérer suñu kaa bu ko lijjanti xoolal bu ni nga def ba pare bu ñu tolloo ci pare rek ñu aussi pare mais actuellement xoolal pareeguñu tëggal ma combat ak baax ma wan ko ni gudd lu mag mooy yëngal mbana amul problème gëm loo ko aussi ne ko xoolal dinaa def ci moom lool loolu. loolu amul problème bu dee loolu mën naa ko gérer mais tam danga may jox benn somme de. xoolal soo tëddee nelaw non non non buñ dugg ci détail boobu xam nga xam nga ma xaman xam naa la waaw ok te bëgguma bëgguma génne sama jikko tamit ba lépp arrêté naa ko yaa ngi dégg léegi leen ngay def after leen ngay def da ngay génne benn som teg ko sama loxo ma téye ko nii su ma ko téye léegi lépp dama koy dama dama koy dox yow teg ci birig rek amul problème bu ñu wàccee ma xoolal bu ñu wàccee ma jox la lu weex tàll xanaa jeex teg ci birig rek yow teg ci birig rek amul problème dinaa la jox moom su ma la koy jox boo koy xool si saas bi ngay lijjanti affaire bi amul problème man naa woo boo li wax ak moom. ma ñëw am fu ma jaar am lu ma réglé xam nga après ñu waat mu du dara ok kon xéewal jërëjëf jàmm ak xéewal amul problème naa ko gérer bàyyi doo bàyyi bantis bi du wéy de bu tëjee xaalis sama loxo dina xam ne dina xam ne ba kii nag bu duggee ci ba ci lay dee rek moom ndax ba dina ko rat ba mu jeex tàkk ba ko mu dem yoonam. góor gi. nangu nga ni ëllëg euh, yomal xiyam doom sañ naa pañe baayam nangu nga loolu. Ah, waaw. Euh, euh, loolu nag li koy waral mooy. bu bàyyi doxul cër bi ko war digganteem ak doomam gis nga poño yooyu nag gisuma ko benn kër bu dul suñu kër gi. waaw li tax maanaam li tax nga gis ko ci kër gi mooy doom ya góor gi maa ngi ñëw nanu war a mel ca seeni baay melu ko ci seeni baay waaw d'accord bismillah ñëwal euh, euh, góor gi nu hmm. ma la woo ngi ñu waxtaan quoi waaw woote ma man sekkuma mag yow téesante ndax sama ndax sama bàyyi nga. maa mag loolu. waaw comme que nag yaay taawu famille bi moo tax ma ni am naa sañ-sañ ñëw wax ak yow. am mag mu ni ku nekk ci lawar mucc ci lawar léeg-léeg nag ñun suñu kër gi mag ñi dañuy fàttali leen war looloo waral nag ma ñëw nag doon waxtaan ak yow comme que yaay taaw bu ko defee nag nga am responsabilité boo tax parce que nag ëllëg yàlla da laaj responsabilité da koy laaj. diggante bàyyi at doom te man sax du ma tudd sama bàyyi ndax yow euh, dund nga an moom nekk nga ak ñoom donte yàggoo fi mais am na loo jot xam ci ñoom. c'est un manque de responsabilité. kon baax na kon euh, beneen bi ci topp muy caam. man awma sañ-sañ sax wax ak moom parce que sama bàyyi la mais awma sañ-sañ wax ak moom parce que moom dafa am nu muy dundee ci àdduna moo tax yàlla suñu borom nit loo leble rek yàlla dina la ko fay. lu baax boo ko leblee lu bon bu dee ñëw bul jug taxoo koo jóg lu bon boo ko leblee lu baax buy ñëw bul jug ndax taxoo koo yegsi taxoo mu yegsi te moom lii ko dal ci digganteem ak doom ji moom waroon naa xam ne dina yegsi parce que ci dundinam mais tey nga am sa doom nga am foo leen jaar nga abandonné ko mais nok su mi li ko dal est que ci moom la bu fekkoon amoon na baay bu matière bu ko gis nangu ni mooy baayam yar ko yor ko dëkkoo ko dalal ko est-ce que tey jàngal ko nag teg ko ci condition yu baax est-ce que dina sànku ba dugg ci lii lii mu dugg nga xam ni guuta la goo xam ne bu ci génn lu lu lu waxuma sax lu ñaaw dina ko dal parce que mi ngi koy bëgg a dal ndax jug am na juge na ci prison am na yeneen ak yeneen mais foofu mu guuta googu mu ne muy fu lëndëm bu doon am na baay bu mat baay du fa yegg mais segam nag dugg na fu lëndëm nag toll na fii te koo xam ni buñ ko tuddee tudd la tey ku tudd nox su tudd Assane famille bi waaw mais tey kooku bu ñëwee ci seeni loxo est que yéen waru leen a am responsabilité bu mat taxawaay bu am solo boo leen am ci ci moom ngir ngeen fexe koo jël sang ko ba mu set boole ko ci askan wi mais ngeen beddi ko am ku nit ku jóge ci ci bërëb ñëw ni da koo bëgg soxna boobaak léegi ku ci nekk nangu woon yaa ko jur kii buñ ñu nee kii dañ ko bàyyi la suba kii daw kii bu ñu ne kii mooy taaw kii ni man doonuma taaw yooyu nag boobu ba léegi di am ci kër gi moo tax nag ma wax at yow ni jot na ngeen am ci taxawaay kon nag góor gi kii seen doom la kii di ko bëgg jóge ci àll ba ñëw di ko bëgg jarul ngeen di seet nan jaar-jaaram ak wala fu mu bokk ak wala ban genre nit la mais kii ci société bi la bokk te amaana sëy bi muy dugg mën naa am bu ci duggee mën na defal àddunaam amaana tey yéen am na noonu taxawaay boo leen am at yedd goo leen koy yedd at noo leen koy xëccee si seen wet mën naa defal àddunaam ba yu bari du ci du seen dugg kon nag foofu nag lañuy xaar bàyyi bu baax moo waral nag man ma ne naa ñëw wax ak yow yow miy taaw nga am ci taxawaay ñu xool décision bu ñuy jël ngir mën a maye nox mi mën koo génne ci guuta gi mu ne. kon nag yooyu daal moo doon kàddu yi ma doon doy. jërëjëf. wax nga waxi doom waaye dafa fekkante ni baayam caam ak ba amuñu benn responsabilité ci àdduna dañoo démissionné man nag depuis ma ñëwee maa ngi ciy def sama kent laay kattan kii fii mu ne xale yi neexatu ñoo récupéré ndax bu dee nit koo xam ne nii day ñam di yéeg ak a wàcc ñuy ñam di doxantoo ngànnaay ay goon ak ay ay jam ak ay suuj ay xottu biteel yu ñu toj ñooñu mënatoo leen te xam nga xaalis boo xam ne nii danga ko nangu ci nit nga lekk loolu boo ko taqamtikoo rek dootoo ko mën a bàyyi ñii mënatoo ci ñoom dara dangay ngay change doom defal ndànk balaa ñu laa toroxal. dañ la gaañ de. comme noonu noonu. nan la rey de. mënatoo leen ci dara. kon nag ñii mënatoo ci kenn mënatul ci ñoom dara. kii police yoon a mën ci ñoom dara jàpp leen te bu nu génnee it gën a garaaw ñii rëcc nañu ca début ba woon ca bu njëkk la woon waaye kii mënatuñ ci dara lu ci sonn nag nan lay rey de. problème loolu comme que yéen amoo leen ci taxawaay. man bu soobee yàlla dinaa ci jëm lu ma mën. Hmm. ndax sama deret la. waaw góore waay beneen bi ci topp. Hmm. góor gi am na lu ma bëgg ñu waxtaanee ko. parce hmm. que temps yi maa ngi gis ngay jaabante kër Binta. léegi tey ñu ni tey la ñuy takk sëy bi ginnaaw suba ñu ni ñu ngi labateeg yu ni mel. te góor gi gis nga fu lu rafet fu ma war xaj lu ñaaw xaju fa. te foofu am na ko tudd buu sa doom la moo doon denc doomam. ba am fab doom sa benn sët bu tudd buum mi ngi fay daag daagu hmm. kon tey góor gi foofu man dama lay ñaan nga am fa taxawaay bu taxawaay boo xam ne ñun duñu rus mais jaabante bi booba ak léegi maa ngi day dégg nga fay jaabante léeg nga yóbbu say ñu lay ñu lay ñu lay topp di la wayal ak léeg nga dem fa maye nga fa liiw ak ginnaaw suba ñu ni mag fa lay naa ne attaay yooyu góor gi lu dépassé la ñun ci yéen la ñuy roy kon ngalla daal góor gi foofu daal euh, rafetal fa te dara lu ñaaw bañ fa am defe naa sañ-sañ boobu am naa droit wax la ko. jërëjëfati jërëjëfati ah damaa yaakaar ne yow nag say yedda ngi bëgg a bari ci gone gu ndaw bu tojul cib nen ndax it lu ma ñaaw ñaaw wala lu ma gàtt gàtt lu ma ñuul ñuul sa baay la kon fa may raxase samay nen di ko saafloo di ko leer loola sa yoon newu ca yow am nga sànce bu mag du baa ngi nii waxtaanoog sa yaay ba bëgg koo jox sa ndey yaa ngi nii di dox ca diggante ba la ngay doxal lépp xam naa ko man nante laa de billaay nante laa ndax damaa wër sama tànk bii lu muy gàtt gàtt fi mu dem bari na te boo doxee rek xam boo doxee jàng la ngay dox lépp di baare sa ndey pour mu dellusiwaat man maa ngi ci ne jàkk di ko gis kon nag yow amoo ay leçon yoo may wax sachet yu ndey gone du ko dox euh, binta maa ko gis wax ak moom loola yoonu gone newu ca waaw binta waxtaan nañu ba juboo ci li nuy def ci moom la desoon yow mii da ngay fàtte rek waaye woo naa leen wax ak yéen li ma bëgg euh, joxe fa la ma fay joxe kon loolu lu fi ñaaw amu fi père man daal am naa droit waxtaan ak yow beneen bi ci topp it am naa droit sa doom laa sañ naa gis lu lëndëm ñëw ne la góor gi lii lëndëm na beneen bi ci topp am na lu ma la bëgg laaj góor bu bële li ma la bëgg laaj mais yor nga xaalis yor naa xaalis bi ñu lay jiw yor nga xaalis ndax day wax. waaw dama lay laaj ba xam dama lay laaj xaalis ndax day wax. dama xaalis ndax am na. kàllaama dama lay laaj ndax moom xaalis bi ñu lay am ko. am naa parce que yow six nga fi indi. yow chaque jour boobu ba léegi moom nga boo solee bii tey ginnaaw xam nga lu tax yéen guttatu ah. leen. xam nga lu tax yéen guttatu leen. ba pare yow ñu lay ji yor nga xaalis. ma ne xam nga lu tax yéen dootu leen gudd fan. Hmm? da ngeen naa mën a wonewu yow gis nga ko yow liñ lay wax dangaa yor moto loo sol di sumeku lii yére yi yomb na yére yomb na sol di sumeku rek defe ngeen mooy àdduna baax na waaw bu fekkee ne nag dangaa ci àdduna bëgg a wone wone maa toll nii gaaw faatu donc cat dina la jàpp nga faatu teeyal gone nga ci buntu àdduna teeyal bàyyi sa wone bii nga nekke maire bi nom na la xamoo li xew xamoo li xew doomu billaahi gone bu ci moytu boo yoree ñaar doon defe ne yaa ngi ay million di wonewu faatu donc ceta lay jàpp te cat cet bu jàpp ku yorut moo gën a gaaw ci faagaagal ba man sama man damay nëbbu ah, hmm. may présenté sama xarit bi rek ah sa def eh, tur bi Salimata na nga def. sant rek. yow waaw sa xarit ba léegi. ah loolu yàgg na ànd koo xamante ni jullit la. nit ku yar nit ku maanu. waaye Sali sama mag baax la ku jàppale ci biir kër gi la. ku yiw ma jaaxal ci. li ma li nga takk ba jigéen ñi topp la moom moo jaaxal. mënoo takk. lan lay takk. ah. dara man xam nga yu bari yi ngeen gis jaamu yàlla lay doon rek parce que danga ko war a téye jigéen jàppale ko dimbali ko loolu ma ciy dugal ñu bari na ñuy defee ne bëgg jigéen wala mën a doxaan wala ah. loolu la rek. yu leneen. man nag maa yéem hmm? man ku la gis rek ku la gis rek hmm? bëgg la. ku la gis bëgg la ku nga naa ma sa sa mag gi sa mag gi sa mag gi dafa rafet sa mag gi dafa dafa civilisé hmm. sa mag gi li muy sañse oo bi ne fii ak capp daw bi nekk fii ah sa hmm. capp lii nag moom lañ koy tudd bari na loo déedéet daw bi lañ bari na lool bari na de bari na trop ci leen di xëcc la ah, moo leen di xëcc nag leen di xëcc la bokk hmm. man dama kontaan ci yow li ma wax ne damay damay tiitaru ah en <laughs> ah, fait maa koy présenté sama bopp. Ah. waaw. xam nga kañ laa lay présenté sama bopp. Hmm. bisu xew ba. xewu xale bi. wallaahi. Ah, la teral ba teral muus bi ma robb ci biir bi may ah. dugg. waaw. lu raw loolu sax dama koy def ci kaw mu lay neex. yii ah déet xarit bàjjen ko na koo def. <laughs> ma naa leen. xelum teranga la. lan ah, eh. nga yow commerçant bi man baana baana laa. baana baana. waaw. waaw waaw baana baana liggéey la. waaw noonu laa bañ Mbayram Ndiaye. so moom itam daa taq soqet. ni ngi daal nii la ñuy def nii eh. rek. di digg waaye ni ngi day bari bari bari ba yow sa wàllu bopp boo ko tiimee da nga naan kii. kii kii kii xanaa dafay wax ak yàlla. jaaykat da ngay wut njarte dafa mën a jaay commerçant bu mag la. jaaykat da ngay wut njarte di jënd di jaay di wàcc ay eh, conteneur lu ne lay indi lu ne. moom mi lu la lay wàcce lu ne loo xalaat rek xoolal wàcce na ko ci réew mi muy nit ku baax nit ku am yërmande mhm. bàjjal ah jarul wax dina gisal boppam waaw <laughs> yow moom hmm. dinaa def ci yow ba àddina yëpp xam ne def naa ci yow musuma indil tam bu mel ni ku yéene ji musuma indil xarit bu mel noonu moom mi waaw kii musuma indil waaw wax waaw te yàlla nattu nag ni nga ko gisee ni ma jigéen ñu toppee ma am na nattu ci ñoom ndax dimbal rek gis nga maa ngi jëloon décision sax ni eh, eh, eh, yaay koy delloo si waaye xam naa ne daal ba mujj dama ciy génn ndax mbiram doy na na nag xam nga yor na xaalis kii meen du ma hmm? kii hmm. kii li mu ne yaay Massa ni di teg nag di indi may kii dafay liggéey day fayit di liggéey waaw mhm. ah, dafay liggéey cin hmm. yi bari na waaw toggkat yi bari na mhm. hmm. waaye bokkuñu cafin cin bokkul cafin bokkul cafin te loxo yi koy togg hmm. te loxo sol mhm. ku nekk kudd ba ngay yëngale ah, waaw dëgg te sama kudd maa rek maa ko yor yaa ko yor te ma yëngalee ba yàqal nga xam ne yàqal naa la. xiif bu looloo xiif lekk xiiful lekk. <laughs> yow sa jëkkër mi ngi bëgg de xam naa ko yow. ah. jëkkër waaw. jëkkër nga wax de. waaw. musuma koo fowe. amoo jëkkër nekk sama xel. jànq la jànq la. amoo jëkkër nii. aw ma jëkkër. daa bëggul jëkkër aw. aw ma jëkkër aw ma far aw ma waxaale. dama doon wër. gisuma damay doog a daj. waaye man de xam naa li nga wax de sama rakk ji ne ci kër gi fii mhm. xam naa ni li muy doy waar yëpp bu dajoon ci yow dina la téye ndax jabar rek léegi te mii ne ma gis ne ngay jàppalee góor. dëgg la de. ah kii bu ma ko joxe càmm téye ko. dëgg la càmm da koy nga ah, kii kii kii jëkkër ju mu maaseel la bëgg. maanaam daal dénk ma sa bopp rek yow mu wutal ah waaw dénk nga nag ku cere dénk dégg nga mhm. waaw yow man danaa la wutal man maa wax loolu di nga am incha allah di nga am waaw waaw nañ ko wutal ku baax de ku baax dinaa ko wutal ku baax ku baax nag ku baax la ko am xaalis la te jigéen moom bu la bëggee da lay yëram waaw te nag nga bëgg ko mu bëgg la moo ko gën waaw waaw nit moom boo seet jigéen ju baax mhm. jàppal kii boo seet jigéen ju am alal jàpp ko boo seet jigéen ju maana ju mën a joxe mhm. déggoo li mu wax ci ci biir wax. Mm-hmm. nee na xew mi dina teral ba teral muusi. ni nga ma dénkee sama bopp laa lay dénkee sama bopp ndax man dese naa benn place. Ah. xam naa ni nga koo xarit bu. <laughs> loolu de laa ma la dénkee sama bopp de soo ma dénkee sa bopp. wutal ma ma wutal la. jàmm rek kay am. jeex na ah. ah waaw waaw <laughs> dégg nga. te yow kenn newu fi a fi des. <laughs> ñu jéem koo ñu jéem a xool mu gën a rafet rek. Mm-hmm. yow nga jëm ko wutal rek mu wutal. waaw waaw incha allah waaw xam naa ne neen moom caam taxu ko. loolu nga gis waaw. yaa ko sa xol de wax dëgg yàlla. Mm-hmm. mu wutal ma mu wutal ko amul amul waaw waaw. man aw ma kenn ku ma koy wutal. ah kon waaw baax yow daal dinañ toogaat waxtaan dégg dégg dinañ toogaat waxtaan dégg ngeen amul benn problème. baax waaw loolu loolu rafet na baax na jërëjëf waaw. sëñ bi man dey wax dëgg yàlla maa ngi tànk yi moom macha allah mi ngi tane gént gi gaal moom moo tar rek moo tar lool sax wax dëgg yàlla te biig moom damaa gën a tiit ndax wax dëgg yàlla man ñi nga xam ñi ma gént ña dee woon bu yàgga yàgga yàgg wóor na yàlla damaa tiit de su ma xëyee sama fit bi danaan tëf tëf tëf tëf ñu gént ñi dee woon gént ñi dee woon gént ñi dee woon ak gént yi yëpp d'une manière générale gént moom euh, d'habitude booy sangoo saafara daf lay faral di dal su fekkee yaa ngi sangoo saafara lu sa bopp gën a diis nag ngay gën a gis parce que man su ma la joxee gàllaaj li ma lay njëkk wax mooy gannaaw bu ma la joxee waxee nan lañ koy jëfandikoo ba rek dama la naan bàyyil ma xel ci say gént bul xeeb dara lépp lu gént envoyé ma ko vocal wax ma ko loolu lay wax ñi nga xam ne ñu ngi sangoo sama saafara li ma ci mooy ki nga xam ne mu ngi jëfandikoo gàllaaj mm-hmm. moom moo war a gisal boppam du yow sëriñ bi yow danañ la won ci listixaar ba lu koy gàllankoor ak lan mooy taxali lan moo koy taxali gàllankoor bi soo ko defalee saraxam ak ñaanam moom jamono ji muy jëfandikoo gàllaj bu fekkee liggéey la buy toj moom moo war a gis ne liggéey bi mu ngi toj yow sëriñ bi waroo ko wax ne ko liggéey bi toj na moom moo ko war a gis ci ay géntam su dee rab bu ko doon gàllankoor la moom moo war a gis ne rab bi mu ngi taxaliko ak moom wala déet parce que su fekkee rab bu ànd ak moom la dana gént koo xam ne dañ daf ko takkoon ñu tas ci sëy ci ci divorce mën na nekk mën na gént koo xam ne dafa bëgg a ñëw ànd ak moom ci sëy mu bañ koo xam ne danaan ñëw facilement ànd ak moom mm-hmm. mais mën na ñëw am ay difficulté pour ànd ak moom mm-hmm. am na ñoo xam ne sax duñ gént mais dañuy gis seen rab ñoom dañ koy gis yàq sa satan maanaam dañuy dañuy tëdd di ko ni ma toogee ak yow nii dañ koy gisee noonu léeg-léeg dañuy ànd ak seen seen rab xam nañ bis ñuy ànd ak rab bi sax ci semaine bi xam nañ ne bis sàngam rab bi chaque jour boobu dana ñëw sëy ak ñoom mm-hmm. léegi nag su fekkente ne loolu am na ñun bu ñu la joxee gàllaaj téere bi boo ko takkee mhm. nga fekk sango yaa ngi sangoo say gàllaaj rab bi bu ñëwee léeg-léeg mën na ñëw nga koy gis waaye du mën jege si du mën yegg si noonu lay def nag tey mu mën na ñëw tey toog fii suba mu toog fee ginnaaw suba mu lay sori ba ba keroog muy taxali kook moom mu dem mais dana xam ne daal mhm. yow yaa ngi utiliser loo xam ne moom arrangé wu ah, mhm. léeg sax mu wax la ko ne la kii la jox lii de li lim la jox neexuma léeg-léeg it nga gént loo xam ne dalay won ne gàllaaj ji ñu la jox ñoom yàq nañ ko loolu dafay am moo tax gént yi dafay bëri ni muy ñëwee ci nit ñi mhm. mais nag loolu mu yow mënoo ko xam yow mi sango gàllaaj gi looloo tax ñu ne la boo booy sangoo suñu gàllaaj soo génte yónnee ñu ko vocal mhm. ñun dinañ ko mën interpréter ci saas yi su fekkente ne nekk lu ñu mën interpréter ci saas yi ñu def listixaar xool gént gi li muy tekki mhm. ñu xamal ñu ko bu ñu ko xamalee ñu wax la ko suñ la ko waxee incha allah su boobaa njëriñ rek nga ci jëlee ci kàttan yàlla mais comme da ngay sangoo gàllaaj di gént moom euh, dangay ngay da yónnee vocal rek gént yi li ci feeñ ci sarax ci gént yi léeg-léeg sa sarax nga gént ko dinaa la ko wax mhm. li ci nekk naa la ko wax bu dee tànk yi mu ngi tane kon baax na parce que yow tànk moo la taxoon a jóg incha allah dégg loolu la waa baax